président Ousmane Sonko. tubaab yi sénégalais yi kolo kolo. président Ousmane Sonko. amuñu vergogne. loxo lépp si kaw. ñu rongoñ. jox ñu suñu carte yi. da ngaa tënk président Ousmane yi ñu matul njiit di fekk rek ne njiit koom-koom di lem ne njiit askan bi dee ko xiif nga jàpp doori liif Baba Sankara africaine, la Ligue africaine, président, Sénégal, le royaume du Cameroun. Sénégal. Merci. Merci. Merci. Merci. Président Ousmane Sonko. àdduna ngi yëngu lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole président Ousmane Sonko jeunesse baa ngi yëngu te lu yëngu lu nekk la ko yëngal ko ëpp doole jigéen ñaa ngi yëngatu immigré yaa ngi yëngatu diaspora baa ngi yëngatu footballeur yaa ngi yëngatu artiste yaa ngi yëngatu sëriñ saa ngi yëngatu lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole président Ousmane Sonko plus ñu lay saaga plus ñu lay gën a bëgg plus ñu lay jéem a plus ngay gën a set suñuy bët plus ñu yónni ay nit pour suufal la plus askan bi di gën a yëkkati ngay fànn si kaw lu yëngu nekk la ko moo ko ëpp doole hasard amul fii ñu fi nekk duñu ay bétail électoral fii ñu fi nekk duñu ay golo yi ñuy ay 5000 ay noble ñoo nekk mineurs yi nekk fii yëpp ay ponkal lañu du ay caaxaan moo leen di yëkkati lu yëngu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole espoir dafa rëy espoir kenn du ko tas surtout yaakaaru xale mosuñoo am loo xam ne ñoo ko tànnal suñu bopp saytu ko xool ko pëse ko xool ci biir ci biti ba tànn ko dafa am loo xam si dañu ko gis mu doy ñu ñu tànn ko xool ko saytu ko indi nga la doon xaar ci wàllu politicien bu noble bu digne koo xam ne dafa ñëw pour yee la jeunesse sénégalaise dafa pour yee la jeunesse africaine du hasard loxo yëpp ci pour le président le digne le révolutionnaire l'honorable le propre le courageux président Ousmane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 buñ ci tegoon ñaari fan mu jël aw yoom dem Côte d'Ivoire ñaari fan kilifa yi ñaan ñu ko ñu nangu ko ñu jàppoon nag ni bu doon ab nit lañu amal affaire ak li xew yépp bu li weesoo dina xam ni li nekkatul que ni mu noote woon askan wi jàpp leader politique yi di tëj jàpp mouvement citoyen di tëj que loolu jeex na ci réew mi jàppoon nañu dina defaraat toogaayam xam ni ñaari at ak genn wàll yi ko fi desee war naa xool nu muy defaree ba génn ci génn bu xaw a tane ndax génn gu rafet mënatu fee am l'histoire retiendra que li ñu mës a am ci président la république yépp li président la république yépp ñe l'histoire retiendra mooy li ci yées kon bu lii amee mu génn ci te yàlla xam na ni jaaxle woon na ba ni Sénégal di toll yëpp te moom mu ne mooy président de la république périmètre am weesuwul woon Mermoz palais de la république te ay chars compagne combat ko doon escorté waaye Sénégal yëpp a seede bi mbiru weesoo ba léegi. ñun li ñu diglante woon ak kilifa yi ñun wàccoo nañu ak ñoom ndax boobu ba léegi ñu ngi ne teg tekkaaral kenn dégguñu ñu wax kenn dégguñu ñu xuloo kenn dégguñu ñu saaga kenn dégguñu ñu xeex waaye njéeréeram yi njéeréeram yooyu nga xam ne ñoom ñëpp bi mbir mi jaxasoo ñi ngi woon ci suusol yi ñi dem tëju ci hôtel yi ñu libéré leen ñu dem wër plateau yëpp. xëyee saaga gontoo xaste ak di menacer moom ci boppam nee na yeeyaa yooyu ma ngay def tournée tournée politique mu naan tournée économique jël ay centaine de millions yoo xam ne suñu alalu réew la ñun ak ay oto yoo xam ne suñu oto réew la ak carburant boo xam suñu carburant réew la dem di yëpp ay car rapide ak ay njaganjaay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 fukk yoo ci jël juróom-ñett ànduñoo ak yow waaye comme danga ngaa réew mi ba nit ñi sonn koo ñëw jox 2000 francs teg oto mu yéeg dem mu ne day dalal xelam waaye li gën a yéeme du lool de fu mu dem taxaw tëkku sénégalais yi fu mu dem taxaw tëkku sénégalais yi te bi mu jaaxle ba jaaxle moo woo kilifa diine yëpp ne leen wax leen wala làmbaay ñaaw nit dangay am jom nit dafay am jom ñàkk jom weesuwul bi ñu lay làmb làmb yu metti yaa ngi tëju fi nga tëju fu ne nga woote fa wàllu bi ñu demee ba may la tuuti oxygène nga ñëw di tëkku nit ñi di leen menacer waaye ma dalal xelu Barthélemy Diaz li ma waxoon waxaat ko Macky Sall tuuti na torop torop torop ci teñu ñun dama ne téeméer dama ne téeméer téeméer yu mel ni Macky Sall boo leen daje woon ma wax la ko Barthélemy Diaz tuuti na pour tere ñu ñun ñu mën a nekk candidat ci bépp élection bu ñu bëgg a nekk candidat réew mi réew mi may leen ma rek ma yeggali parce que 19 heures lañ ñu may te dañu bëgg a nekk ñu discipliné dama ne réew mi benn sénégalais rek laa xam ni tey ñëpp xam nañu dootul doon candidat ci réew mi te sénégalais boobu dafa am tur am sant mooy kan benn sénégalais la amul beneen moom la ñu am firnde bu leer nañ ni réew mii dootu fi nekk candidat.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 ba ma demee nee nañu préfet Kaolack nee na tant moo fay préfet manifestation du fa am